Cheikh Moussa nee na. suñu rakk ji sëñ sëñ Mbène Fall. nee na sa rakkam sa rakk ji di sëñ Mbène Fall. ni mu dégg léegi ni mu doon baaxee ba mu dégg lii. ni ko suñu borom baaxee ba mu dégg moo ñu àndal ñëpp. moo ñu àndal ñëpp. ñu indi aw nag. ñu indi aw nag. ak addi ju rëy ci ñun. am nañu ko baax ci taxawaay bi am mm, nañu ko baax ci taxawaay bi nee mu mii di wax ci la bokk ndax fexe na muur ne ay nag ni ne na ñoom it ay nag jox suñu sëriñ jox suñu sëriñ di jëmaliwu ko fenn ko fenn nag ci ab sëriñ ci ab sëriñam rek te kii ab sëriñ te kii moo di ab sëriñam kon manel mii kon mu bokkal baay bari na ñi mu ndax moom mii di wax waaye moom ñi mu waaye nag moo nee moom ñi mu àndal wuy si leen sëriñ bi wuy si leen sëriñ bi di tax ñu doon fi dara ci di tax ñu doon fi dara waaye jurul kenn waaye sëñ bi jurul kenn du njaay kenn du nijaay kenn du mag kenn du magi kenn ku dul ku dul li ne fi moom ko ko wut si kon su fekkante ne faal ji dina suñu mën a sant mais bu fekkoon ne faal ji dongul suñu mën a sant jëla yem yem ci yem ca du mën a ànd ak booram toll mais du mën a ànd ak booram toll nii jëf ci kër Seera Fall jëf ci kër Seera Fall xam nga bii day jëfaat mais bii day jëfaat jëfoon na waaw dañ ko mën a misaal daa doon la jëfoon na daa doon la suñu maam seen jëfoon na daa fee indiwaat xam nga ci ah, sa borom dogal ba mu nekk Amérique. mais sa borom moo dogal suñu mëneel faal mii ba mu nekk Amérique. waaw la jiitu mu ngi liggéey Tuubaa Mbacke bi Mbacke Mbacke nu mu. waaw waaw daal sëñ Tuubaa ji rek. daal sëñ Tuubaa ji waaw. ko yónnee ko fi. ñu teewal ko ci loxol jëriñu Cheikh Fall. ñu teewal ko ci loxol jëriñu Cheikh dafa jaar jëriñu ji Modou Fall. dafa jaar jëriñu sëñ Modou Fall dafa jaar suñu loxo ñun. jaar jëriñ jëwriñ yi Cheikh Rafal Cheikh Rafal bi li ma jur mooy sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue mais ci jublu nag mooy sëñ Cheikh Ndiaye mu tegal leen ko ci loxo jëriñ mu tegal kon seen liggéey àgg na rëkk ne kon seen liggéey yegg na rawatina bu tey bii nag rawatina nag liggéey bi tey jii ndax dégg ngeen wax ci rajo bi ndax dégg ngeen léegi bi ne wax ci rajo bi nii jëtt nga moom dara jëtt nga moom dara liw ndax tey sëñ bi daa xëy daanu ndax tey sëñ bi daa xëy daanu dafa am jëlil dafa am jëlil tey ba lam daan def ba lam daan def mu dooleeku mu dooleeku nekk nag ba dara des ba dara des suñu gëtt waaye balaa asamaan set nag waaye balaa asamaan set nga xam ne ku defal yàlla la mu bëgg nga xam ne ku defal yàlla la mu bëgg te jaar ko sëñ Tuubaa te jaar ko sëñ Tuubaa jaar ko Serapha la nga bëgg dina am faw des na ko yëg faw des na ko yëg mbooloo ci ay nag mbooloo ci ay nag dina fi ñëw nee na dinañ ko yët ay gëlëm. des na ko yët ay nag ndax moo jox yàlla li ndax moo jox yàlla li mu am lépp. nee na suñu borom moom lépp. kon dana ko wutal lu gën. kon dina ko wutal lu gën. dina ko wutal lu man lu faw lu faw ko. mu joxe ay yoon yoon kon yàlla ngeen yàggale ko kon yàlla ngeen yàggale ko suñu tubaab. jaar ko Serap